mbokk yi ñu ngi jéem a leeral li ñu doon wax ci lool arabiya ci waxi wolof yàlla na ci yàlla jàppale bu baax a baax muy kalima bi nga xam ne walla kàddu gi nga xam ne moom la xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafizahu llah wa raaw xam ngeen ne moom nun noo wax xalifa général de Mouride waaye moom fi mu ne li mu bind mooy xulaamul xadim loolu la bind moom la def ci tampon nee na nañ koy wooye xulaamul xadim tawaadu an min waaye nun nag fan koy yóbbu moom buñ ko mënoon a weesale foofu sax weesale ko fa na moom xulaamul xadim rek la ne gannaaw bu mu yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi ak saxaaba yi euh, ak ñoñom mi ngi nuyu mbokki jullit yëpp yi nekk ci penku bi ak yi nekk sow ak yi nekk ci àdduna si yëpp di nuyu mboolem koo xam ne citoyen nga bu dëkk Sénégal di nuyu murit yëpp mbokki murit yëpp as mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mu ne yàlla wax na ne day danaa leen nattu yéen jullit yi danaa leen nattu seet ba xam seen ngëm fu mu toll lu ma leen di nattoo danaa leen tiitloo danaa leen indil ay tiitaange tiitaange yi jamono danaa leen indil léeg-léeg xiif nawet bañ a am nit ñi duñu euh, tool yi du du jàkk walla ma nattoo leen ñàkk danaa leen nattoo itam seen alal di wàññiku danaa leen nattoo itam léeg ma faat ay bakkan yu bari danaa leen nattoo itam ngeen bay ba yàgg ba am ca yaakaar mbay ma man ci sama borom subhaanahu wa taala ma nattu leen ci ba du ngeen ko jëriñoo waaye loolu lépp de damay seet ba xam fu ngeen toll ci man rek seenu ngëm ak seen yàqin ci man yàlla fu ngeen toll kon ña nga xam ne kon na nga yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bégalal gaa yi nga xam ne bu ma leen nattoo natt yooyu ñu muñ ñu ànd ak muñ muñ gu dëggu ci seen xol du ñu jàmbat du ñu tawat du ñu wax lenn loo xam ne day yàq seen imaan ñooñu nga xam ne bu fekkente ne yàlla teg na leen nattu wala musiba la ñu jey teg ñun ñoom mooy a ah, ñun de yàlla moonu moom te it ci moom rek lañuy mujj delluwaat ñooñee nag yàlla nee na maam samay xéewal ak sama yërmande danaa ko wàcc ci ñoom te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo jaar ci yoonu jub loolu la sunu borom subhaanahu wa wax kon nattu bii nga xam ne moom la ñu yàlla teg ci fan yii di kilifa gu tedd gu màgg gi di Cheikh Sidil Mokhtar xafisahullah eh, eh, yal na ko yàlla dolli ay leer doonoon kilifa gu mag jeexal dundam gépp ci jaamu yàlla jeexal dundam gépp ci liggéeyal Cheikh al jeexal dundam gépp ci fas yéene jullit yépp nekk benn jeexal dundam gépp ci di tabax ay jàkka di ko dundal Cheikh Sidi Muxtaar radiyallahu anhu jëmm la joo xam ne royukaay la woon royukaay la woon ci lan royukaay la woon ci dëddu àdduna jëmm joo xam ne dangay fekk àdduna jëpp jublu ko milliards yi yëpp jublu jëm si ci moom mbooloo bépp jëm si ci moom mu dëkk ci mu nekk ci mbaar moo xam ne seng lay doon mu nekk ci néeg boo xam ne ñi gën a euh, néew la ci dëkk bi am nañ néeg yu ko gën a rafet am nañ kër yu ko gën a baax te lépp di fa egsi ci moom ndax loolu mooy dëddu dëddu du du ñàkk ba noppi door a dëddu dëddu moo di nga am ko ba noppi te moomu la nga jëmee ko ci yàlla loolu mooy dëddu àdduna loolu yi Cheikh Sidi Muxtaar ab royukaay la ci woon Cheikh Sidi Muxtaar nee na moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa Sidi Cheikh Muxtaar royukaay la ci jaamu yàlla ab jaamukatu yàlla la woon boo xam ne foo ko fekk rek mu ngi jaamu yàlla tëju yéeg lépp foo ko fekk moom zahid aabid rek mooy mooy mooy mooy aw doxinam nit ku amoon ak dogu la itam xam ngeen ne li mu fi def ak li mu fi taxaw Cheikh Sidi Maxtaar Cheikh Sidi Muntaxa nee na ku amut ak dogu munoo ko ku amut taxawaay munoo ko euh, ku mat a roy la it ku mat roy euh, euh, ku mat roy tàngee itam ci dépenser alalam di ko def ci yoonu yàlla di dimbale ñi nga xam ne dañoo ñàkk di dimbale miskin yi di dimbale xujjaaju baytillaahil xaraam yi daan dem Makka xam ngeen ne at mu jot mu yóbbu lu mat ñeent fukki nit wala juróom fukki nit yoo xam ne seen frais yëpp moo koy yor seen dem ak dikk diirub bi mu fi nekkee ba bisub tey jii kon roykot roykot bu màgg boobu maa ngi koy jaal sama bopp di ko jaal ummal islamiya nation islaam yépp maa ngi leen koy jaal ci sëriñ bu màgg boobu di kilifa gu tedd gi di Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan yàlla mu yëkkati darajaam ci àjjana yëg nga xam ne moo gën a kawe muy ña nga xam ne yàlla yàlla boole ko ci ñi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala teral na leen muy yonent ya ak siddiquuna ya ak shuhadaa yi ak saalihiina ya gaa yooyu nga xam ne képp koo xam ne ëllëg yàlla boole na la ak ñoom ah nar na ci yow jàmm ànd nga gaay yu baax maa ngi ñaan yàlla man Cheikh eh, eh, Cheikh yàlla fay Cheikh Sidil Muxtaar pay ga gën a màgg fay ko ci lim liggéeyal murid yi liggéeyal ko jullit yi liggéeyal ko jaami yàlla yi nekk ci kaw suuf yépp loolu yi maa ngi koy ñaan sunu borom subhaanahu wa taala man eh, Cheikh Mountakha Mbacké al xalifatul gannaaw gi maa ngi sant ñëpp maa ngi jëmale sama cant di sant ñëpp sama bokki jullit yëpp ak sama bokki yi nga xam ne ñooy murit yi di leen sant eh, ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxaw ci bis bii eh, waaye bi ma leen santee ba noppi nag ndax gis nañu ñëpp délégation yëpp bàyyi nañ ko nañ fu ne mboolem tawaayif yi ak turux diini turux yi nekk ci biir Sénégal ñoom ñëpp benn tarixa disut ñëpp àndandoo dikk bokk ak moom métit wi ñoo ko dikk ñoom ñëpp ànd ak moom jaal ko kon sëriñ bi nee na ñëpp mi ngi jëmee ci ñoom di leen gërëm di leen sant di leen xamal ne lii moom ci boppam yëg na ko lool rëy na ci moom it lool léegi nag maa ngi bëgg indi ay baat yu gàtt jëme ko ci ñan ñi ma bokkal Seexul Xadiim di ak njabootam nga xam ne maak ñoom ñoo bokk lii fii ma toog tey jëme ko it ci murid yi ko it ci mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite diine ji ci biir réew jëme ko ci mboolem citoyen yi nekk ci réew mi ci biir Sénégal ak ci ñi nekkul ci Sénégal maa ngi ñaan yàlla ndimbalam maa ngi koy ñaan tawféexum ba mu dëppalee dëppale ak li nga xam ne moom la li may wax dëppoog ngërëmam dëppoog na nga xam ne moom la bëgg te defal na ko itam ci suñu jéego bu ñu jéggi bu ñu mën di jéggi di ko dox rek na doon ngërëmam sunu yëngutu yëpp ak sunu dal yëpp na nekk loo xamante ne lépp ngërëmal yàlla rek lañ ci wut sunu borom subhaanahu wa taala wax na ne jullit dafa wax yonent bi ne ko waxal ne sama julli samay jaamu yàlla sama dund sama faatu lépp yàllaa ko moom moomu ma ci dara te duma ko bokk ak boole kenn laa sharika la loolu yi mooy li nga xam ne moom la ma yàlla digal man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man Seydina Muhammad maay ki nga xam ne maa jiitu ci jullit yi ne loolu yi yonent bi ñaan sallallahu alayhi wa sallam noom loolu yi moom lañ bëgg insha allah mu nekk suñu pas-pas kon tomb bi nga xam ne moom laay jëmale ci moom laay njëkk a jëme ci ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Serigne Touba. mooy tomb bu njëkk bi ci njabootu sëriñ Tuubaa gépp laa ko jëmale maa ngi leen di wax ne gannaaw boo xamante ne nangul naa leen jaayante gi nga xam ne moom ngeen def ak man maa ngi leen di xamal ne day lii ngeen def ak man di dégg naa ko bu baax a baax a baax xam naa lu muy tegtale de xam naa lu ngeen ci jublu de xam naa ne day ah mboolem luñ luñ ko war a déggee rek déggee naa ko noonu ci sama xel ak ci sama xol ak li nga xam ne tegtal yi nekk ci njaayante googu lépp ak li muy tegtale lépp ak li muy junj lépp dégg naa ko bu baax ba tey maa ngi leen di xamal ne xam naa bu baax a baax euh, loolu yi ngeen ma jox muy jaayanteeg man la mu laaj ci ay responsabilité la mu laaj ci kóllëre gi nga xamante ne moo dox sama diggante ak yéen di kóllëre gu mag waaw loolu de na ngeen xam ne yëg naa ko xam naa ko xam yëg naa ko bu baax tey xam naa ko waaw te responsabilité boobu nga xam ne moom laa fas yéene yanu ci kanam sama borom ci seen kanam ak ci kanam seexul Khadim maa ngi leen koy seereel ak ci kanam àdduna sëpp te na ngeen xam ne yan bii ma yàlla yan na ngeen xam ne maag yéen a ko bokk noo ko bokk maag yéen fii nga xam ne fi laa toog tey ñu di ma tuddee ne maa fi toogal sëriñ Tuubaa kenn ku ne ci yéen man na fee toog kon nun ñépp noo ci bokk yam képp kon bu ma fi toogee maa ngi ñaan yàlla yaakaar ji ngeen am ci man ak li ngeen di séentu ci man mu fa fa ngeen may séentu rek ma weesu ko walla bu ma ko weesu wutit ma egg fa maa ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu dimbali ma ba yan boobu lu mu diis diis mu woyofalal ma ko ba ma man koo yanu ni nga xamante ne ni laa ko bëggee ak ni nga xamante ne ni ngeen ko bëggee innahu samiul mujib yàlla day dégg na lépp yàlla xam na lépp yàlla na ko nangu maa ngi leen di fedd li sama jaayante ci kanam sama boroom ci kanam àdduna sépp ci daleen leen xamal ne maa ngi yeesalaat sama dogu ci fas yéene jokk ci liggéey yi nga xam ne moo fi nekkoon te jiitu fi di liggéeyal sëñ Tuubaa di samay wajur ak di samay kilifa liggéey yi nga xamante ne moom lañ doon liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéey boobu fas yéene naa ko jokk fas yéene naa ko yokk fas naa caa def li ma mën lépp te loolu lépp it bu ma koy def damay ànd ak yéen di diisoo ak yéen lépp lu may def ci kaw suuf danaa ca diisoo ak yéen yéen ñi nga xamante ne yéen laa ko seqal lenn lu may def rek incha allahu dama ciy diisoo ak yéen ci mbir yëpp ni nu ko alxuraan diglee ne jullit yi de seen mbir lépp ci diisoo lañ koy def duñ def dara loo xamante ne kenn koy def wala ñaar waaye lépp dañ koy waxtaane ba teg ko ci fañ ko war a teg ñoom ñëpp ba juboo loolu laa fas yéenaa doxe loolu laa fas yéenaa ànd ak yéen maa ngi ñaan yéen ñii di waa kër Cheikhul Khadim di njabootu Cheikhul Khadim ngeen nekk sama seere ci kanam yàlla ci jaayante gi nga xam ne moom laa jaayante ci seen kanam yéenay sama seere yéen yéen waa yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal Sëriñ Tuubaa yéenay sama seere ngeen seere ma te it ma bëgg nu jàppoo jeexal lépp lu ñu am ak lépp lu ñu man ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu def lépp lu ñu man ngir lépp loo xam ne day defar nu àndandoo ci nun ñëpp lépp loo xam ne day yàq nu àndandoo ci nun ñépp ba dindi ko moo xam ci mbirum diine la moo xam ci mbirum àdduna la insha allahu lii man Cheikh Mouhamadul Mountakha moo moo moo moo moo moom laa bëgg mu doon sama doxin beneen tomb bi ci des mi ngi jëm ci murid yi murid yëpp ci ñoom laa ko jëmale ak ci mboolem murid yu góor yi ak murid yu jigéen yi maa ngi leen ciy feddil ne nanu amaat pas-pas pas-pasub sellal suñuy jëf lépp nan koy jëf ngir yàlla bu nu ca boole kenn ndax jëf bu sellut ngir yàlla sunu borom subhaanahu wa du ko nangu bu nu ko bokkaale kenn ndax sunu borom subhaanahu wa nee na moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa nee na yàlla moo wax ne man yàlla digaluma leen lu dul ngeen jaamu waaye jaamu ga na sell ngir man képp bu leen ci boole dara yàlla moomam diine ji diine ju sell jii diine yàlla du diine kenn sunu borom subhaanahu wa moo ko moo ko moo moo ko moom digal leen it ngeen di taxawal julli di ko saxal di ko def ca waxtu ya nga xamante ne ci la ko sunu boroom diglee ak ya a jiitu julli ci laab ak ci lépp jàkk yi di fees loolu itam maa ngi leen koy digal yéen taalib yi di ko digal sama bopp di leen digal li nu yàlla digal ci képp koo xam ne am nga alal ni ko aaya ji diglee ñuy joxe asaka yooyu loolu kat mooy diine mooy ji diine joo xam ne dafa tegu ci ak njub kon maa ngi digal sama mbokk jur taalib yi yépp di leen xamal ne noo ngi leen di digal ñu góor góorgóorlu ci sellal seen jëf ngir yàlla digal leen ñuy jaamu yàlla di jaamu yàlla rawatine di julli rawatina itam di joxe asaka ak yeneen ya nga xamante ne moo aju ci la yàlla digle lépp ñu di ko def yamu tere yépp itam ñu di ko bàyyi loolu yi maa ngi leen koy digal na xam ne ixlaas def ngir yàlla mooy li nga xam ne mooy ruug wooteb sëriñ tubaa wooteb sëriñ tubaa bépp sellal la dara lu sellut bokku ci dara lu sellut bokku ci wooteb sëriñ tubaa bi lépp lu ngeen gis sellut loola bokku ci ku ko ca boole yaa ko ca boole waaye moom boolewu ko ca te du ca bokk ba mukk nag moom mbooteem bépp ci lislaam kese la jëm jëmul ci leneen te lislaam ju sellit joo xam ne day ànd ak sunna loole mooy li nga xam ne Sëñ Tuubaa ci la nekkoon moom miit ci la nee na ci loolu la fas yéene nekk te loolu itam la nuy digal nun ñëpp te Sëñ Tuubaa wax na ko bi nga xamante ne yoonam wii bi mu koy yeesal wax na ab murit nu mu war a mel ab murit nu mu war a mel sëñ waxal na ko boppam ab murit du wax ne nii lay mel sëñ Tuubaa mooy waxal boppam moom Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na sëñ Tuubaa nee na euh, melow murit mooy bàyyi doo doo namm dara dootoo bëgg dara dootoo xëcc dara dootoo jëñ dara ngir jëm yàlla mi nga xam ne mooy def lu ko soob wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi ma man yafalu ma araada mu ne kon murit mooy koo xam ne na moo dara bëggoo dara yàlla rek nga bëgg soxlawoo dara yàlla rek nga xool nee na loolu mooy murit man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu ku buggul dara lu dul yàlla jàpp ci yàlla kese danga egg ci yàlla la nga bëgg ci yàlla it da nga ko am yiw woo xamante ne itam yéene nga ko sunu borom dana ko egsil ci yow bu fekkee yàlla képp nga fa ab teg ci sa kanam te bëgg ko moom képp na moo leneen nee na loolu ñaari bayit yooyu ci la Sëriñ Tuubaa tënk ak murit loolu mooy murit mu ne kon war na ci nun ñëpp nu yeesal sunu taalibe euh, kon noonu Sëriñ Tuubaa wax Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu ne noonu yi Sëriñ Tuubaa wax la ab murit di mel ab murit dara du doon bëgg-bëggam lu may yàlla yàlla rekk lay jublu yàlla rek lay nam kon war na ci ñun ñëpp nu yeesal sunu iraada sunu taalibe te yeesal ku mu sel lool te yàlla képp tax yàlla dong dong na tax buñ ko booleek dara ci sunu yéene ak ci sunuy wax ak ci sunuy jëf ak ci sunu mbir yëpp lépp loo xam ne it noo ngi koy def nan cey seet ngërëmal yàlla bala nu caa seet suñu njëriñ bopp lépp lu ñuy seet def nañ cay seet ngërëmal ndax lii gërëm loolu sëñ Tuubaa door caa seet suñu mbirum bopp nañ ciy jiital ngërëmul yàlla di ca jiital ngërëmul sëriñ bi bala ñu caa seet suñu eh, njëriñul bopp wala ñu ciy seet suñu ngërëmi bopp eh, ci loolu nag bu nu ko defee ci suñuy yëngutu yëpp def ko ci sunuy dal yëpp def ko ci sunu pas-pas yëpp def ko ci sunu wax yëpp ak sunu jëf yëpp loolu itam nekk ci biir ak ci bitti li nekk ci sunu bitti na nekk ci sunu biir li nekk ci sunu biir na nekk ci bitti lépp sell ngir yàlla rek mu ne moom Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na Sëriñ nee ne isil muridu la yuridu abada gayra rida rahmani xaysu xasada ne murid daal mooy koo xam ne lenn ngërëm ngay wut ci kaw suuf mooy ngërëmal yàlla képp soxla woo leneen ngërëm boo ko ba am jeex na nee na ab murid loolu yi noonu la war a mel kon war na noo gën a sellal suñu jëf yépp te xam ne lépp lu ñuy def itam suñu borom subhaanahu wa war nañ ko cay bàyyi xel bu baax lépp lu ñuy def nanu xam ne yàllaa ngi nuy gis nun buñ ko gisut nu di ko bàyyi xel moo xam ci suñuy ci biir la wala ci bitti la te it wattandiku bu baax a baax di jëf ngir rek say njëriñu bopp say intérêt rek yoo xamante ne moom képp moo la tax a jóg yëngatu bi nga yëngatu ngir sa intérêt bopp képp ak loo am ak loo def ci sa bopp say Cheikh Mouhamadou Mountakha ne nañ watti loolu masaaliha sax si yi eh, mënu ma koo ñàkk wax mooy intérêt personnel yi nañ ma jéggal ci wax gi ma koy wax léeg-léeg kii tubaab ndax dafay loo xam ne ñu baree bari ci réew mi am na wax yoo xamante ne buñ ko waxee ci wolof nañ ko war a waxee duñ ko dégg moo tax léeg ma laal ci baati tubaab na koy jëwul kon jëm ci suñu njëriñi bopp rek loolu yi suñu itte war naa gën a kawe loolu waaw suñuy yéenee ak su suñuy pas-pas it war naa gën a kawe loolu ku ne rek jëm ci sa bopp loolu yi war na nañu ko wattandiku bu baax ndax yooyu amul benn solo lu ñàkk solo la loo xamante ne ku daw jëm ci it diir bu gàtt da ko rëccu kon war nanoo jéemam boole suñu itte yépp jëme ko ci yàlla fab suñu lépp jox yàlla yéeg nag jëm ca kaw ngir am ngërëmal yàlla maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaq nee na li nga yàlla nee na mboolem li ngeen yor li muy bari bari lépp dana xëy jeex tàkk te yàlla moom li mu yor fi lay des du fi jóge mukk dafiy des ba faw te yàlla nee na day ñi nga xam ne ñoo doon topp samay ndigal di bàyyi samay teg tere nekk ci li ma bëgg di sàkku sama ngërëm dinaa leen fay te te waxtu wu ne lu metti metti ñu muñ dinaa leen fay pay ka gën a rafet ca la lu gën a rafet fuuf lañ doon def ñoom ci seen bopp waaw nee na képp ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga euh, yàlla nee na danaa la fay pay googa te mooy bu ëllëgee danaa la dundal dund gu teey dund gu neex te danaa la joxit pay goo xam ne yool boo xam ne moo gën a rafet fopp mooy la gën a rafet ci la nga xam ne moom nga doon def loolu yi nee na suñu borom subhaanahu wa taala moo ko wax nee nañ jéem a settantal aaya jooju te jéem koo xool te jéem koo jëfe te loolu it aaya jooju it ci lanu nu sëñ Tuubaa eh, moom la nu digal fi muy waxee ne yaa ayyuha nabilu da ma yanfadu wabgi munan fi abadin laa yanfadu yow nit ki am xel yow ànd ak sa xel waaye waaye àdduna jii nga xam ne day jeex loo fi dund dund loo fi yàgg-yàgg bis a ngi ñëw boo xamante ne da nga fi jóg ñu suul la ci suuf si mu jeex takk la nga yoroon jeex takk mën naa am sax ba la nga fay jóg la nga yor moom jeex yow ci sa bopp it dangay jeex kon euh, sàkkul loo xam ne boo ko amee dootu jeex mukk te loolu mooy ngërëmal yàlla kon maa ngi leen di dénk man mu Mouhamadul Muntaqa na ngeen yee salaat seen pas-pas yéen taalibe yi na ngeen yee salaat seen pas-pas bu baax te lépp lu ngeen di def yàlla rekk tax te lépp lu ngeen di def seen ak jublu ak seeni i pas-pas lépp na yàlla képp tax bu leneen tax na ngeen wattandiku intérêt yi nga xamante ne ay intérêt yoo xam ne nit ki képp lay jëriñ te mën naa am sax nit ki di cay jàpp ne njëriñ ma ci nekk waaye boo demee sax nekku ci te loolu nit dafa war a weesu rek di wut njëriñal boppam kese doomu aadama dafa weesu weesu loolu lii nag bu nu ko defee ci la ñuy amee li ñuy tuddee ak murid saadix ak murid saadix yombul de nee na bu ñu defee lii ma wax ci la ñuy mën a amee li ñuy tuddee al tu saadixa te muy ak murid saadix ci la ñuy mën a amee itte ji kawe ji nga xam ne Sëriñ Tuubaa ci la tabaxoon yoonam wii te yoon woowu mu tabaxoon ne moom moom Sëriñ Tuubaa bi woon ci himma aaliya boobu ak iraada saadiqa boobu yar ci ñi nga xam ne ñoom la jëkkoon a àndal muy ay murit muritam yi nga xamante ne ñoom la jëkkoon a àndal yar leen ci ñaar yooyu rek la leen yar mooy iraada saadiqa mooy nammeel goo xamante ne mooy taalibe gu dëggu rek ak taalibe bu ñu koy wax rek mooy iraada saadiq ak himma aaliya itte ju kawe lool itte ju kawe nag ku ko am danga nga wattandiku yu suufee yi lool kon nee na loolu la yare woon gaa yu baax yi ko toppoon cheikh yi ko toppoon mag ñi ko toppoon ba mu defar leen ci ñaar yooyu la leen yaree woon ci ñaar yooyu la leen defe woon defaree woon kon nanu fexe ba ñaari jikko yooyu nekk ci noonu loolu moo tax maa ngi leen di fàttali euh, taxawaay bi nga xam ne seen wajur yu jëkk yi nga xam ne ñoo toppoon sëñ Tuubaa taxawaay yeñ taxawoon ak pas-pas yeñ amoon maa ngi leen koy fàttali maa ngi leen fàttali taxawaay ye seen maam yi taxawoon yéen taalibe yi ku ne na nga xool sa maam ju baax ji nga xamante ne moo àndoon ak sa Cheikhul Khadim nu mu àndee woon moom nu mu amee woon pas-pas nan la bëggee woon Serigne Touba nan la doon doxee ngeen fas yéenaa mel ni ñoom eh, te booba nga xam ne yoonu mu a ngi joor a jóg sëriñ bi bëgg koo taxawal mu metti lool sëriñ bi jóg bëgg a tasaare wooteem bii nga xamante ne moo taxaw ba egsi fii tey booba jamono yooyu jafe na te booba seeni waajur ak seeni maam ñoo àndoon ak moom te pas-pas lañ àndee woon ak moom bu dëggu ak iraada sadiqa boobu nga xamante ne moom la doon wax kon maa ngi leen di woo di leen soññ ñu eh, wéel jëf yooyu nga xamante ne moom la seen maam yi tàmbali woon nu fexe ba jokk ca rek mu wéy ba faw seeni maam ak seeni baay muy eh, itte ja nga xamante ne moom la seeni way jur ak seeni maam amoon ngeen fexe ba am itte jooju bu ngeen ko munta amit ngeen fexe ba jege ko boog sax ngeen fexe bokk ku mënta am ittey sa maam wala mu ittey sa baay it na nga góorgóorlu ba jege ko bokk te ku góorlu itam ah, yàlla dimbale la waaye maa ngi leen di xamal ne mbir mii di yoonu murit yéen taalibe yi na ngeen xam ne du ngeen ci ñoo xamante ne ay jaamur ngeen ci noog yéene ko bokk noog yéene ci yem képp na ngeen xam ne yéen taalibe yi yoonu murit wii du ngeen ci ay jaamur noog yéene ko bokk waaw na xam loolu du moomeelu kenn noog yéene a ko bokk beneen tomb bi ci des mooy bi nga xam ne maa ngi koy jëmale ci waa Touba nag ñi dëkkee Touba mu ne ñetteelu tomb bi maa ngi koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci dëkk bu tedd bii nga xam ne yàlla aar na ko ñoo ñi yàlla teral ba ñu dëkk ak Sëriñ Touba ku yàlla teral dimbale la ba nga dëkk ku màgg ku toll ni Cheikh Ahmad Bamba ñoo ñii lay waxal tey yéen ñi nga xam ne yéenay dëkkandooy Serigne Touba yéen waa Touba ak képp koo xam ne yaa ngi jógee feneen di ziyaare si Touba maa ngi leen di dënk ngeen sàmm ormay dëkk bi maa ngi leen di dénk ngeen taxaw fu ngeen mën a toll teggin yi nga xam ne moo war ci dëkk bi teggin yi nga xam ne moo war ci ku dëkkee Touba melaw bi nga xam ne moo war ci ku nekk ci biir Touba da ngeen sàmmonte ak loolu te noonu kat ñi dëkkoon Touba te Serigne Touba andi woon leen fi muy sunu maam yu baax yi nekkoon fi démb ak barki démb noonee lañ meloon ci biir Touba am ñi nga xam ne dañoo dëkkoon ak Serigne Touba dañoo xamoon kiñ dëkkal dañu doon yëg ne Serigne Touba ngi nii di teg seen bët ci moom bu ñu ko gisut moom it moom ña dem àllaaxira ña dul ñëpp ñu ngi jàkkaarlook ñun moom it mi ngi jàkkaarloog ñun guddi mi ngi jàkkaarloog ñun kon war nañu ko rus war nañu koo yeres war na noo fexe ba dëkk gin dëkk ak moom nu fexe ba lépp loo xam ne bu jëmmam teewoon nu di ko gis mu di nu gis loolee buñ ko ñëmutu def ci kanamam waruñu koo def ci dëkkam bu tedd bii waaw lépp lu yellut ci dëkk bi Seex Xadim nga xam ne boo dëkkoon ak moom doo ko def rek fas yéene la bu xam ne ba tey yaa ngi dëkk ak moom mi ngi lay gis mi ngi lay yëg mi ngi mi ngi koy xam nañu fexe ba lépp loo xam ne day xotti ormay dëkk bi lépp loo xam ne sellaayu dëkk bi da koy dindi day dindi càll ga nañ fexe ba loolee nu soli ko nañ fexe ba loolee ku koy def moo xam am polo moo xam nekk ci dëkk bi di wone sa bopp wala wone sa euh, sa sa melo di ko damoo di ko yëkkati ko loolu kenn ku nekk ci dëkk bi waru koo def sañ Tuubaa kenn nu warut a nekk moom di gis sa bopp wala ngay gis lenn ci sa bopp wala ngay sóobu ci mbiri àdduna yii nga xamante ni jëmut fenn wala nga di ci ëpp di ci ëpplanteek sut sutlanteek rawlante ba mu fàtte loolu yàlla fàtte loolu Serigne Touba fàtte la fàtte loolu ki nga dëkkal na ngeen xam ki ngeen dëkkal mooy kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba rus leen ko te weg ko dalika wa man yuazim shaair allahi fa innaha min taqwa alqulub suñu borom day képp koo xam ne shaairam yi yaa ngi koy ormaal yàlla dana def ci sa xol nga ragal ko yàlla dana def ci sa xol nga nga nga nga màggal ko dalika wa man yuasim xurumatullahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi ku ormal orma yi sunu borom yi yi nga xam ne mooy dëkk yi gaa yu baax yi ak jàkk yi ak barab yu sell yi képp koo xam ne yaa ngi koy màggal di ko sellal di ca def la ca war loolu da nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam da nga xam ne loolee de moo gënoon ci yow nga def leneen lu loola sunu borom subhanahu wa moo wax loolu kon maa ngi leen di dénk yéen taalibe yi ngeen wormaal dëkk bi bu baax a baax nee na nag ah ku def lu la neex dajeeg lu la neexut ah, loolu nag na ko ñëpp déggandoo mooy ku fi nekk di def lu la neex bis dana ñëw nga dajeeg lu la naqari nee na ku nekk ci dëkk bii di fi def lu la neex bu ëllëgee boo dajeeg lu la naqari bul ko wax kenn na nga xam ne yow lépp yaa ko teg sa bopp yàlla nee nag man maay ki nga xam ne maa not lépp maa not sama mbir sama mbir maa ko yoral sama bopp kenn mënu ko yàq waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu loolu te lii moo leen wax nag yàlla seene na ko beneen tomb bi nga xam ne maa ngi koy jëmee muy tombu ñeenteel bi maa ngi koy jëmee ci ñi nga xam ne ñooy kilifay diine yi ci réew mi kilifay diine yi ci réew mi di samay bokk li ñi nga xam ne ñooy xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ak kilifay diine yépp ak mboolem association islamique yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi ñoom ñépp wax ji may wax ci ñoom laa ko jëmale gannaaw bu ma leen sante gërëm leen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom lañ taxaw ànd ak nun sunu tiis bii maa ngi leen di tàllal sama loxo yéen ñépp nag mbooleem turux yi nekk ci biir réew mi mboolem mu assasaat islamique yi nekk ci biir réew mi maa ngi leen di tàllal sama loxo loxob bokk loxob cofeel loxob xarit maa ngi leen koy jox yéen ñépp tàllal naa leen sama loxo maa ngi leen di xamal ne nanu bokk àndandoo jàppandoo fexe ba lislaam bépp nekk benn loolu mooy sama it man Cheikh Mouhamadou Mountakha na lislaam bépp nekk benn nit ñépp nekk benn loolu yi mooy li nga xamante ne moom laa bëgg moom laa bëgg itam yéen sama mbokki këri diine yi ñu jàpp ak association yi nga xam ne ak ñiy yëngu ci wàllu lislaam ñun ñëpp ñu jàpp ci loolu ba fexe réew mi ñëpp nekk benn bokk benn sàppe di bokkandoo kàddu di bokkandoo lépp loolu yi mooy li nga xamante ne moom laa bëgg loolu lépp nag àndandoo boobu bépp ñun ñu def ko ngir liggéeyal lislaam ak tasaare jikkoy lislaam yi nga xamante ne moom la seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak it ngeen xam ne it am na lu nekk ci suñu kanam ay defi yu rëy ñoo xam ne ay noonu lislaam lañ yoo xam ne ñi ngi taxaw ci biir adduna si ngir bëgg a yàq lislaam ñoo ñii taxaw ngir bëgg a yàq nag mënunoo taxaw ci seen kanam lu dul nu àndandoo nun ñëpp nekk benn rek bu nu àndut nekk benn ñoom la ñuy jéem ak la ñuy fexe lépp dana sotti waaye bu nu àndee nekk benn ñoom la ñuy jéem ak la ñuy fexe lépp dara du ci sotti na innamal muminuuna ixwa nee na bo lislaam ñi bokk gëm yàlla ñépp ay bokk lañ ñi bokk gëm yàlla ñépp ay bokk lañ kon nañ defar seen bokk te ragal yàlla ci bokk googu bu ñu ko defee yàlla dana leen yërëm kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ba tey mu ngi wootewaat ci waxdatul islaam wal muslimin fexe ba jullit yépp nekk benn loolu yi mooy li nga xamante ne nee na moom la bëgg moo tax mu tàllal loxoom mboolem turuqu suufi yi nekk ci biir Sénégal yépp ak mboolem mu assasaat yi nekk ci biir Sénégal di yëngu ci wàllu diine yépp tàllal na leen loxoom ngir ñu àndandoo àndandoo jàppaloo di waxandoo di yëkkateendoo di tegandoo loolu lu tax ñu di ko def ngir rek dëgëral diine ji ak ñi nga xam ne ñooy noonu diine ji duñ mën ci diine ji dara euh, mu ne nag incha allah man de danaa def lépp lu ma man ci li nga xam ne moom la du yàlla digal lépp lu ma ci man danaa ko def ci lépp loo xam ne ak dimbalante la ci lépp lu baax dimbalante ci lépp loo xam ne luy tax ak ragal yàlla ak taxawal diine ak di diisoo ak mboolem jullit yépp ak këri diine yépp fas yéene naa di diisoo ak ñoom ci lépp loo xam ne day tax jullit yi nekk benn lépp luy tax jullit yi nekk benn danaa tàllal naa sama loxo képp kuy ab jullit ci biir réew mi walla ngay kilifa ci biir réew mi tàllal naa la sama loxo fas yéene nu àndandoo te lépp luy xew nu ca àndandoo di ca diisoo lii man Cheikh Mouhamadou taxaa mooy sama jublu mooy li nga xam ne moom laa bëgg yàlla nañu ci yàlla jàppale kon nan jàpp ci buumug yàlla gi waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu nun ñépp nan jàpp ci buumug yàlla gii muy lislaam te bañ a teqaliko buñ jàppee ci buum googu rek duñ teqalikoo te luñ soxla dinañ ko am kon lii mooy sama yéene nee na nanuy dimbalante jullit yi jullit day dimbalante ak moroomu jullitam ci lépp loo xam ne day defal lu mu lépp loo xam ne lu baax la di dimbalante ci jaamu yàlla di dimbalante ci ragal yàlla jullit yi loolu lañu war a def waaye lépp loo xam ne day indi bàkkaar wala muy indi ak noonoo wala muy indi ak teqalikoo wala muy indi ak féewaloo loolu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na nan fexe ba aaya jooju ni ko yàlla diglee nu bañ di ko jàng suba ngoon waaye nu fas yéene di ko jëfee ni ko yàlla digle kon jullit yépp dañoo war di jàppalante di dimbalante ci lépp loo xam ne luy defar diine ji la lépp luy defar sunu àdduna ak sunu alaaxira nan ca jàppalante lépp loo xam ne baaxut bakkaar la wala luy teqale jullit yi la bu ca benn jullit dimbale kenn nañ fexe ba loola dañ nee na mi ngi mottali ay waxam nag di ko jëmee ci waa senegal gépp bàyyiwul kenn moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tàmbalee ci ki nga xam ne tàmbalee ci mboolem jullit yi ak mboolem waa réew mi ci ñi nekk ci kaw ba dañ ñi nekk ci suuf nee na mi ngi fas yéene def lépp lu man ci lépp luy dëgëral bokk gi bokkuk diine gi ak bokkuk réew mi mi ngi fas yéene lépp lu man dana ko ci def ba bokk googu dëgër te lépp lu koy rafetalit lu mu ca man lépp dana ko def te buum yooyu nga xam ne mooy buumuk bokkoo ah di buumuk dëkkandoo di buumuk bokk réew mi nee na maa ngi fab sama bët teg ci de te la nga xam ne fa ma laa ko tegit mooy fa ko yàlla di la ci yàlla digle ci albirru wal ihsaan fas yéene lépp loo xam ne lu rafet la ma ah luñ ma ca woo ma wuyu ca lépp loo xamante ne lu baax la bu buñ ma ci wooyee ma wuyu ca ak dëkkandoo gu rafet nag xusnul jiwaar fexe ba ñépp dëkkandoo ci dëkkandoo gu rafet goo xamante ne kenn du def moroomam lenn loo xamante ne day tax xol yi jóg loolu lépp ñu wattandiku moo xam ci wax la moo xam ci jëf la ñu wattandiku wax jëpp joo xam ne day yëkkati ay xol wala day yëkkati eh, ak noono wala day yàq ay diggante loolu lépp nañ fexe ba loolu lépp mu jógee ci réew mi ñu jëlee ko fi ndax dimbalante ci lu baax mooy fexe ba yu bon yépp ñu fexe ba képp ku koy def yow kenn yaa koy def waaye boo ca wéetee doo ca am ñoo xam ne doo ca am doole kon nañ fexe ba wax joo xam ne day teqale wax joo xam ne day yàq wax joo xamante ne dafa ñaaw nañ fexe ba wax yooyu yépp ñu jëlee ko ci nee na yàlla nee na jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale kenn jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale kenn nee na Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi fàttali jullit yi loolu nee na mi ngi fàttali jullit yi nee yàlla ne bu ngeen ma jaamoo ba noppi na ngeen yéen gone yi yéen mag ñi nangeen topp seen ñaari wajjur di rafetal jëme ci ñoom lu ngeen man dee leen rafetal ni ko yàlla diglee ci seeni jege ñaale ak ñi nga xamante ne ay jirim lañu ak i miskin lañu ak seen i dëkkandoo lañu na ngeen di rafetal jëm ci ñoom nangeen di rafetal yi jëm ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen suuf ngeen yilif leen lépp loo xam ne moo di ak rafetal na ngeen ko jëme ci ñoom yàlla de bëggul jaam boo xam ne day taxaw di damu di nekk koo xamante ne day nekk mbër mu taxaw rek di damu rek di tooñ rek neen sunu borom subhanahu wa taala ko koo kii nga xam ne ma ngay damoo loola di nekk ci kaw suuf rek di tooñ ak yàq suñu borom nee na kooku du doon xaritam kooku itam suñu borom bugg ko kon maa ngi leen di xamal ne dinaa def lépp lu ma man ci képp koo xam ne nekk nga ci biir réew mi ak feneen fu mu nekk ci li tàmbalee kenn ku ne danaa la jox sa àq képp ku nekk ci réew mi li tàmbalee ci président de la république ba ci ki nga xam ne mooy chef de quartier bi ku ne lay àqam danaa ko ko jox waaw te it kenn ku ne ci réew mi ak ci waa réew mi ñépp ku ne la nga xam ne mooy sa àq ci man danga ci jot moo xam ñaan la moo xam ak cofeel la moo xam dimbalante ci lu baax la moo xam lépp loo xam ne day defar loole kenn ku nekk ci réew mi la cay sa àq te ba yor ko danaa ci jëflante ak yow ci réew mépp nag laa amul teqale ñépp laa ci yemale kon bokk yi war na ci dun Cheikh Mahamadou Muntaxa mooy wax ba tey mu ne war na ci nun war naa leer nañ nit ñu nun ne maa ngi leen di leeral ci sama biir nag man sama biirum bopp lenn itteelu ma ci kaw àdduna sii lu dul liggéeyal lislaam ak jullit yi aw ma jeneen itte aw ma beneen bëgg-bëgg xooluma leneen bëgguma leen liggéeyal lislaam ak jullit yi rek te it aw ma soxla ci dara ci lu dul lu may dimbale ci yan bu diis bii nga xam ne moom la ma yàlla yan ku may dimbali ci loolu yi nga xamante ne mooy lislaam ak jullit yi te sunu borom subhaanahu wa taala teg ko ci sama dox gi leneen lu dul loolu nag awma ca aajo soxlawuma ko du ma ca yàq duma ca defar du ca yàq du ca defar lu dul ñaar yooyu lii nag gannaaw loolu mbokk yi maa ngi jeexal samay kàddu di leen yeesal samay cant di ko yeesal nag ci bokk yi nga xam ne ñoo teewal seeni réew di ñi nga xamante ne ñooy diplomates yi ak ambassadeurs yi nga xam ne ñoo teewal seeni réew fii ci biir Sénégal te ñoom ñëpp keroog ci biis boobu nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi ko na fi ñu jógee ca capitale ba jógee Ndakaaru dikk fii ak coono yañ ca jànkonteel yëpp dikk ngir bokk seeg nun sunu naqar wi nga xam ne moom la ñu am maa ngi leen di gërëm di leen sant bëgg ñu jottali ma ko seen réew yi nga xam ne moom lañ bàyyi ko maa ngi santit réew yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ñu dëkk ak nun mooy réew yi nga xam ne ñoo wër Sénégal bu ma ko waxee ñëpp xam nañ soxlawul ñu di ko lim waaye réew yooyu yëpp gis naa leen ay délégation bàyyi na bàyyi ko ne ci réew mu ne ci réew yooyu dikk bokk ak nun sunu tiis wi ak sunu naqar yi ñu nga xam ne sunuy doomi ndey la noog ñun benn lan kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax ci taxawaay bi ñu taxaw ci bokkum nun sunu bis bi bi may jeexal maa ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal nu tawféex ci nu teg suñu tànk ci li nga xam ne moom la bëgg te gërëm ko nu teg ci suñu tànk fopp te dootu faw te dootuñu ci teg suñu tànk waa maa tawfiqi illa billah tawféex jooju nag du bàyyi ko ci kenn ku dul yàlla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 maa ngi ànd ak moom maa ngi ci ànd ak tawféexam ba dafa may yomb maa ngi ñaan yàlla ñaan gu nangu googu Cheikh Khadim amoon maa ngi koy ñaan yàlla yàlla defal ma ko waaw loolu maa ngi koy ñaan yàlla te di ko ñaanal ñëpp te di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne it gis ngeen doon naa yëngu ci wàllu njàng ak njàngale di taxawal ay jàngukaay jàngukaay bi nga xamante ni gisoon ngeen ko ñu doon ko doon ci yëngu muy di di ko tabax ak yeneen jàng ko ak di tëral ay mbir yuy tax gone yi bëgg jàng ak mag ñi bëgg jàng loolu yi insha allahu taala bisu boppam lay doon boo xamante ne danaa ko woote bu egsee danañ ci waxtaan ñi nga xam ne ñoo ko war a séq ñu war caa waxtaan diisoo ci yépp danañ ci diisoo lu ñu mën ndax njàng dafay sama itte jàngale day sama itte xam-xam day sama itte xam-xam day sama itte moo tax dama bëgg nu gën koo fonkaat war koo delloosiwaat fexe ba njaboot gépp ñu fa xamal leen yàlla fexe ba njaboot gépp li ñu war a xam ñu xam ko loolu yi mooy li nga xamante ne mooy sama yéene wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.